一千一。 raw te ko jàng dool ba na koo war ku ñëw فيها xalifa bi ak nag porte parole bi ñu ngi leen di dalal incha allah di ñaan yàlla mu barkeel tànk yi te defal leen xeewal gis nga moo tax ñu fa kaana al ustaad Mouhamed Sakhir mazharan min mazahiri qawlillahi taala fi alqurani alkarim wa lawla dafau llahi nnaasa baadahum bi baad لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله الخوي العزيز الذين إذا مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور مسافرين aaya bii daf ko taxawe yàlla nee na nit bu ma koy dëgëral du man may ñëw ñu may gis ma jàpp ca bagga ya tànk jël nit ni moom mu taxawu ko nee na bu dul taxawaay bu dul woon ak taxawaay bi ma jox nit mu man ka taxawoo moroomu nitam yàlla nee na di ngeen dox gis jaamukaay ya nga xamante ni moom la yahuudee jaamoo am ñu ko màbb jaamukaay ya nga xam moom la nasaaraa jaamoo am ñu ko waaye mu ne jullit ñi kon di ngeen xëy fekk seen ñu màbb leen lan moo tax loolu amul yàlla nee na taxaw bi ma taxaw loolu nit moo tax mu nit dox diggante ak moroomu nitam ba nit kooku du def lu def lu yées yàlla nag ne wala yansuranna allahu man yansuru man ma dimbali ci dimbali sama yonent ku ma dimbali ci dimbali sama yonent ak samay gaay dimbali ba ci njub nekk ci istixaamatu nee na ma dimbali la wax ko isdaada taalluqan bi mabaadi il wasatiyati wal ictidaal falam yaxkum ala ahadin bil janna aw innaar ba mu xamee ne yàlla daal moom moo xam mucc yi la ne teg xasul kenn newul ci safar la jëm newul ci àjjana la jëm comme yi surtout nag fii ñu ne sama mag di ko wax ñun ñu yàlla na taw ñu bokk ci porux suuf yi ñoo gën a soxla lii may wax dal jubboo tatagalante fekkente ndax ñeneen ñi suuf ya saxul ñoom ñu di tere leen moo tax bàyyam lay taw ñi ma xam a ustaas di suura xayya ci moom ñoom ñaar ñu bokk jëf ci ci far ak yàlla far ak lislaam may wax ni bu fekkente ni bàyyi na ñoo yàlla moom mi moom lépp kenn bañ a ñaaw njort ci kenn waaye gars yi su di lislaam day gën a nekk ba pare ñu am fay day far maa ngi wax ci dëkk yi may ne leen li ne Sénégal amul fenn kenn fenn yàlla daal li mu gën ni fexe na ba ci mu mu andil ñu ko ci Sénégal gii gis nga la ca Touba moom doy nañu la ca Touba doy nañu la waaye nag sunu mbokki taraba yi day nañu sëkk teewul nag nu ñëpp nu ñëpp nangu dogalu yàlla ci ne bàyyi la yàlla ko yónni bi duuna tafarrufin aw xulu ba bàyyi lay bëggee ñu yàq kenn ba ñu xuloo daf dafa yàq pour pour lu ko bi sayi di jox mala bi ku am sëriñ mun a jàpp may wax ni ñooy waa Orof yi xare xam bu jël sa morom yóbbu ci sa bos damay laaj ne lan nga yokkal islam kii tariixa bi la bokkoon léegi bii la ñëw waaye léegi ndax lislaam yokkul yokkul am na ñoo xam ne ñu ngi ca leneen ñoom mais ñun ñu nekk ci xeex ci benn circuit fermé fermé jël fii andi fii cër boobu yokk nit diine nañu am nañu fonkante nañu téyante nañu rey ustaasare ca waxat ya ak yaate daal bu ko defee li ngay dañu mooy ñaan lii ñu fi waxtaane nii muy mel mbir rek bëgg ñun ñëpp ñu dal ku ne loo mën a ne foofa nekk nga ne fakkal yem yemoo mooy ko ëppal yàlla na law ci réew mi ba leneen lii ñëw yii ñëw maa ngi naan xale yi barke dem ne ñëpp ñaaw rafet njot rafet njot ci ne Sénégal watee bu dul wate jàmm moo fi am mayuñu kenn kenn ci benn couleur politique bu mu mën a def muy yàq nelaw nit ñi ku bëgg nit ñi dama ci ku ne dama faral jëlal sa carte nga wateel ko soo paree doxin sa soxla que le meilleur gagne kenn du taal dëkk bi def personne suñuy mag suñu yaakaar li ñu def ci mi ëpp na ci ay nit di taal mi ak jalgati Sénégal incha allah bu soobee suñu borom ñu xam ñëpp xam signe développement xam nañ ne réew mi am na lu suñu borom namp te commencé na ba mu commencé yàgg na. koo moom yaa ngi feeñ nañu fexe mu gën a feeñ dañu exploité ko ci jàmm ñëpp ko ko dàq fi ndóol dàq fi réer dàq fi noonoo dàq fi feebar dàq fi bañante. lii rek la ñu soxla laa nuriidu abadan man yuxaawir an yazida qiina man la la mais maa doon am sax waxuma saree loolu xam nañ ne mu ngi xam nañ ne mu ngi fii toog xam nañ it moom am ñee lu ngi ñaan lu ñu fi am ci xeewal yàlla na yëfam yàqam te barkab xaritam waaye gaa yi tey jii la sëy naa laay di wax saytaane dee na de ku gis tawraay bii tey xam naa ne saytaane moom mu ngay ñëw wàllu wéru mu ngay ñëw koy daw naan woy sama ndey ndax lii lay bañ ñu ànd jullit ñu ànd lay bañ al usra tena bii tena ba wii ñu ngi leen di ziar bu baax di leen ndokkeel di leen tatagal jullit ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel di leen tatagal bàyyi moom lii daal laa amoon ci li ci wax ci wuy may loolu ko fàttali bopp di ko fàttali jullit ñi di am mbégte ci bu baax a baax waaye ñun ñëpp ñu ànd ci gën a door gën a gërëm di ñaan yàlla xam ngeen ne moo fa tabaarakallahu nun li ñu yàlla nattoo ku baax amoon yéene loolu nag moom pour teew fi te lii day wane ni moom amoon na yéene pour teew ci bis bi ndax ku yónni sa porte parole amoon nga yéene ñëw kon cana canaba yëpp ngeen yëg ni yëmbal bég nañu bu baax a baax a baax ci lii ñu seq ak yéen te defe naa du woon du woon tey li démb la woon ñun ñëpp bari na xale yoo xamante ni cekkeen gële fa la ñu yaroo kër Pape Ndagg daan ak ay doomam ay ndikeeg ñun aas ñoom ñëpp di ñu baax kon bu ñu jëlee cër bi jébbal ko waa canaba porte parole bi jóge ba Thiénaba ñëw fii ah la mataatul ndaw si ñun yal na yàlla barkeel El Hadj Diop jërëjëf yal na yàlla barkeel Anta An jërëjëf yal na yàlla barkeel kon sëriñ bi bisimilah buñ paree waaw bisimilah. añaam ca kokki ba coowa màggal bay Cheikh Ahmed Tidiane bay Cheikh Ahmed Tidiane doroxlu gaa tax mm-hmm. tuddee bis bii lii rek mooy mbiram mooy ko nga miin ci paaram jàmm a andi yow boo ñëwee mu def ko muy jàmm kooku mooy bàyyi ngeen jël bis bu rëy bi tuddee ko ko wax dëgg yàlla day bis yëpp day neex na ko waaye bii neex na ko lool moo tax délégation bi mënatuñoo sax lim lépp ndax bëgguñu téye temps bi waaye jàpp naa ne li olof naan li yàpp am lépp war na ko ñeex Baye Cheikh Ahmed Tidiane li mu am fa tabarakallah andil na ko waa yëmbal ngir ngeen kontaan Serigne Baye Diop Seck comme ni ngeen ko waxee yor kàddoom yor darajaam macha allah mi ngi nii toog fa tabarakallah di doom ci Baye Serigne xanaa doyoon na sëkk waaye mu toftal ko kan Serigne Ar Seck borom digal mi nga xam ni mooy responsable moral bu fédération nationale des daayira Tidiane de Thiénaba mi ngi nii toog moom it fa tabaarakallaahu nekk rek ci wetu bàyyam di dëgg déglu rek ndigalu Baye Cheikh nekk ci wetu bàyyam bëggul dara xoolul dara lu dul joxoñu bàyyam bàyyam ni ko waajal ndax bis bee damaa ñoroo El Hadj dafa naa ne képp dootu ko présenté dañuy jóg dama ne leen dama ne ko Serigne Pape jógal ndax yaay suñu kilifa ci nii mu ne ma doy ma sëkk yónni naa kon fa tabarakallahu waaye muy gaaw ci xalifa bi ne ko sunu waajur daal waxe rek mën a tëgg la ci mbaar bi bisu ceeb ci kon a tabarakallahu yoon yàlla yàlla dëgëral la sa mission ci canaba yàlla ko yàlla téye ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye a tabarakallahu sëriñ maam Amari Seck maa ngi koy seet bu waaye sëriñ boobu Seck ñu tuddee ko maam maam Amari daal fa tabarakallahu sëriñ Alpha Mamadou ci délégation bi da bokk ci sëriñ bi di doomu magam ju tedd ja bàyyi sëriñ di déglu ndigalu bàyyam bàyyi jëga sec moom it di doom fa tabarakallahu ci xaalifa bi ànd nag sëriñ Gora magam waaye sëriñ Abdoul Aziz Seck maa ngi koy seet di doomu sëriñ Souleymane Seck borom xaas waaye fa tabarakallahu bàyyi Issa Diop di doom ci kër gi fa tabarakallahu di doom ci bàyyi jëga sec ma nga ne waaye imaamul mahdi yu defe naa nag fa tabarakallah su bàyyi Cheikh yabalee délégation ba woo sa tam naan imaamul mahdi fekk si fii waa kër Seydina Limaamu defe naa loolu mat na kon imaam ñu ngi lay jox sa cër ñu ngi lay jox sa wàccuwaay moo ne fa tabaarakalla waajuram moo ko yebal waaye sëriñ maam Amari Seck mu bàyyi sëriñ buubu Seck mi ngi noonu toog moom it nekk fii ci Pikine nekkal ci Cheikh Thiaba sëriñ Adama Seck di nekk bu mag dafa naa mos nañ tuddee lii du tey daaw bi ñu tuddee sëriñ Ar waa kër maam di maam dafa naa ni moom waxtaan ba mu jël ak kàddu ba mu jël ci boole côté kenn du ko fàtte sëriñ Adama moo nekk noonu fa tabaarakalla bokk ci délégation bi ñu ngi lay ziara waaye fa tabaarakallaahu Serigne Mouhamed Seck mu Serigne Souleymane Seck borom xaas ñu koy ziare ànd ak rakam Baye Jibril Seck ñoom ñëpp Serigne Souleymane Seck jullee mais Serigne Bamba Gueye di représentant Serigne Thiénaba ci région de Thiès ñëw na def une forte délégation ànd ak sunu Serigne sunu xarit muy alxaaji ñang di doomu sunu Baye Bakary ñang Baye di sët Cheikh Amadou Bamba ñang fa tabaarakallaahu ak waa damaa yor fooy de waaye Baye Khalifa Sarr maa ngi koy sën moom it di sëriñ bi dafa kontaan délégation bi kenn ku ci nekk rek wallahi kum yebaloon mu day sëb waaye Baye Cheikh mbir ne toll foofu kon Baye xalifa di xalifa maam ñàkkul saar mi ngi ne toog fa tabarakallahu yàlla yàlla dëgëral ko monsieur Abdi Ñing nekk haut conseil des collectivités territoriales mi ngi nii di doom ci xalifa bi mooy fa tabarakallahu ñëw na njaga sekk moxtaar di historien ci kër gi di vulgariser di ñu waxtaanal toujours la vie et l'œuvre de Serigne Thierno Mame Omar Ndao def nag benn livre bu doy waar rek ci gàmmu gi ci Baye Cheikh Ahmed Tidiane def les réalisations de Baye Cheikh kon moom mi ngi ñëw na toog ànd ci délégation bi kon délégation bi rëy na fekk sa nag borom yaaram jëm ànd na ak tàggkat yonent yi mhm. muy El Hadji Pape Abdoulaye Mboup nga xam ne bu ma ko déggee yàlla Baye Cheikh la moom moo jox ma bien màkk ni ma a juddoo ba ko jenneel kii mënatuma koo fay bàyyi Cheikh Allo biir màkk yi moo ci man ordonnance yi moo ci man xarit tabaski yi moo ci man waaye kilifa yëpp noonu lañ mel ànd naa samay rak Mouhamed Bachir ak Mouhamed fa tabarakallahu beneen Mouhamed ay Mouhamed rek la ñu am fekk na ci sunu rak Zal Diaw sunu maam ca Canaba mooy maam Ngusaan Mbuur muy maam maa jóge Mbuur moo daan tàggal yonent bi Cheikhu Canaba maam moo taal sekk góor gu ni ko jàpp ni ko Sayyiduna na Hassan ci Momar Talla Seck am na ngusaan ci samay jamono bu yowmal xiyaamee lu yonent bi defal Xasan ma ci barkeem defal ko ngusaan ak njabootam loolu moo ñu topp mooy sunu ndoro te nag ku nekk sa kër tëbi du mooy yàq sa dig sëriñ Mansoor li boo ci tëlee ñu nag rek cee fas yéene tëb Cheikh Ahmad Tidiane Seck ci lañ leen di nuyoo nuyoo bu ànd ak ziyaara ànd ak ñaan ànd ak ndokkeel leen. ànd ak ndokkeel leen. waaye ànd ak kontante. waaye ànd ak kontante. ku am fu mu tàmbalee. kontante koo xam ne am na fu mu tàmbalee. waaye amul fu mu yem. ci kër maamam. ci kër ci kër baayam. ci kër fii ci kër maam li maamu. fii ci kër maam li di maamam. fii ci kër maam Isa. di kër way juróom. kon suñu kër la ci lépp. kon suñu kër la ci lépp. ci côté yëpp tam ci côté yàlla boole nu boole goo xam ne. yàlla boole nu boole goo xam ni. adduna yëpp xam na ko. adduna yëpp xam nañ ko. ba suñu façon tarbiya sax. ba suñu façon tarbiya yi sax. ci wàllu yàlla. ci wàllu yàlla. lenn rek la. lenn rek la. mooy laa ilaha illallah. mooy laa ilaha illallah. muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah. mboolem kuy taalibe maam Ahmadou Ndack. mboolem doom jum jur ci deret. waxuma doom jum jur ci deret. wala doom jum jur ci deret. nga dib taalibeem rek. nga dib taalibeem rek. boo fi nee jàng rek. boo soo waxee. boo waxul. boo waxul ubbiku nga ci yàlla. ubbiku nga ci yàlla yow. nga ngir la nga yëg. ngir lu leen di yëgloo loolu lan moo leen di yëgloo mooy li gën lépp mooy li gën lépp afdalu maa xult afdalu maa xult ana wa nabiyuna min qablu kalimatu laa ilaha illa muhammadu rasulullah ku dul ab jullit sax ku dul ab jullit sax buñ jëmee woon ci yow jaasi buñ jëmee woon nga tudd baat bi nga tudd baat bi ñu teggi la umirtu umirtu an uqaatila naasa an uqaatila naasa hatta laa ilaha illa allah waaye ñun ñi di jullit nag waaye ñun ñi di maam ahmadou ndaak maam limaamu di doonay yonent di ñoom teg di ñoom teg ci ko namputal ko ba ñoom ba ñoom kon fu ñu jëm nun kon ñun fu ñu jëm kon luy sunu cër kon ñun lan mooy suñu cër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 la ilaha illallah ci kaw yaaram la doomu yaaram xalifa bun xalifa nee bun xalifa borom karaama yi di bàyyi Cheikh Tidiane Sekko dinaa fi way maam cosaani diine Chérif ci Sénégal dun yoqiku laxiinin ca sa maam ahmadu ndaat jàmbaar ja ba ci bàyyi Cheikh Tidiane Seck mi doon yaakaar ji ay waay ca wura mahdiyu ay waay ca tukuloor ya Cherif ak xare ya mu xare ba jàpp góor ya doom ya mu am seen doom ya ñooy donante seen sët ya ñoom it ñooy jëlante dina tuut ca mbooti xare wax la géwal ya ko daroon ak fere seen maam maa jooja mbuub kookaa doonoon surnaal ba ay waay tax na ba duñ ko fàtte moo xam tool ba tuut ca mbooti xare wax la géwal ya ko daroon ak fere ya maa jooja mbuub doonoon surnaal ba tax na ba duñ ko fàtte moo xam tool ba xaaral ma dagg ko dinaa la wax fa maam ahmadu ndaag riñaane jëm fuuta ak mbooloo ma dem di ñaani ñu takk fas ya gaaya war koy sikaro sunu maam ahmadu ndaag góróom du sànkar ña ko topp nan mooy donuy amari ngoone mooy donuy taala donuy sawru donuy maama bàyyi cheikh ñaanal nu dañuy wax ni lu bokk nuroo. sëriñ baa ngi wax ni nag lu bokk day nuroo. waaye luy lenn lenn rek lay doon. waaye nag luy lenn tamit lenn dong lay doon de. te ñaari kër yi lenn rek la. te ñaari kër yii lenn rek la. benn làmp rek ka fay xuy. benn lamp rek ka fay xuy. di gindi ñëpp. di gindi ñëpp nag. laa ilaha illallah. muy góor di jigéen. muy góor muy jigéen. koo gis ci kër maam limaamu. koo gis ci kër maam limaamu. muy sikkar di joowu. muy sikkar di joowu. day mujj di maam limaamu. day mujj sax di maam limaamu moom. ba xaal ba muy yore. bu ca jógut ca jamono jooja. ca jamono jooja. fatoo néegam. bu fatoo néegam. man la maam limaamu mënoon. man waaye day jóge ca xaal ba. waaye day jóge ca xaal ba. dellu di insaan kese. di insaanu kese. di abdu kese ab. di abdu di ab jaam rek. moo tax ma ni ñëpp a gindiku ci yàlla. moo tax ma ni ñëpp a gindiku ci yàlla. kon ñooñu amal nañ leen jukkal. kon ñooñu nag amal nañ leen leen di diingat rek. ku leen di diingat rek. gindiku woo. yow gindikoo boobu. maam li ak ñi mel ni moom. ñaata jaami yàlla. ñaata jaami yàlla. lañ tàggat seeni xol. lañ tàggat seeni xol. tàggat seeni ruu. seen jëmm. tàggat seen jikko. bañ di sang. ban nekk ay sang. kooku foo ko foo ko foo foo ko foog. kooku foo ko foog. ku dul ca boroomam rek. ku dul ca boroomam. doo ko fa fekk. doo ko fa fekk de. moom ñi mu taalandoo loon moom ak ñi mu taalandoo loon yàlla yàlla fayal ñu. kon ñu leen. waxtaane ko. liñ log ci waxtaane ko. ngir bég. ngir bég. ngir taaru barab bi. ngir taaru barab bi. xaju fi. xaju fi. ngir nit ñi. ngir ittey nit ñi. ngir xataayu jamono. jamono. léeg nga wax ko. léeg nga wax ko. nit ñi wuti wuñ defi wuñ lu ko ëpp. waaye ki fiy jóge waaye seeti ku feebar seeti ku feebar wala wutit ordonnance wala mu wutit wala siyaari mbokk wala siyaari mbokk mook toogaay bee yam mook bii moo ci jaamu yàlla la bokk te lépp ci jaamu yàlla la bokk kon nu di ko sóor kon nan koy sóor sëriñ bi nag sëriñ bi nag boole nañoo ak sunuy mag boole nañoo ak sunuy mag Serigne pam Mboup tuddoon na leen. Serigne Pape Abdoulaye Mboup tuddoon na leen. waaye sunu fit a ñemewut. waaye ñun la sunu fit ñemewul. ñu toogandoog ñoom. ñu toogandoog ñoom. ñu ne nu bismillah. ñu ne wax nu bismillah. ñuy tàmbali dara. ñuy tàmbali dara. te tudd nu leen. te tudd nu seen i muy Serigne Assec borom digal muy Serigne Assec borom digal. di Serigne Gora Seck. di di doomu xalifa bi. di sëriñ Adama Seck. di alxaaji Adama Seck mu bàyyi sëriñ Talla di bàyyi Mor Gueye mi doon yëkkati léegi. di tafsir Mor Gueye mi doon yëkkati léegi. ñu àndoon ak sunuy nawle. ñu àndoon ak sunuy nawle. ñuy waa kër maa jooja. ñuy waa kër maam maa jooja. ak sunu mag sëriñ Abdou Ngingue. ak sunu mag. sëriñ Abdou Ñing feggoog sunuy rak feggoo ak sunuy rak sëriñ Alpha Him sëriñ Alpha sunuy doom ni ci biir sunuy doom ni ci Jibrilu Seck sëriñ Mouhamed sëriñ Mouhamed sëriñ Abdou ak ñi ñu ko bokkal ñëpp sunu mag suñu mag maam Amady Seck maam Amady Ndak Seck nu fekk fi nag. ñu fekk fi sëriñ seexu Cheikhou Seck. Serigne fii ci yëmbal. fii ci yëmbal. fekk fi itam. fekk fi itam. Baye Youssou Ndiaye. Baye Youssou Ndiaye. fekk fi itam. fekk fi itam. Serigne Madické Seck. Serigne fekk fi itam. fekk fi ak sunu mag. feggoo ak sunu mag. di doom ci sëriñ bi. di doom ci Serigne bi. Serigne Mamadou Ndiaye. Serigne Mamadou Ndiaye. fekk fi. fekk fi. ma bàyyi Mara. Mara. Mara Dramé. muy nu ma ko. di doomu xalifa bu àndulaay la. te te moom itam mi ngi fi. moom it muy ñun ñuy moom ak Serigne Pape Ndiaye Tayer. ak Serigne Pape Ndiaye Tayer. kaddu yi. kaddu yi. du gudd. cant la. cant la. ak ngërëm. ak ngërëm. ak ñaan. ak ñaan ak kontaan. waaye ñu ziyaara sunu mag. waaye ñu ziyaara sunu mag. Sëriñ Moor. Sëriñ Moor. Laay. Laay. di doomu suñu wayjur. di doomu suñu wayjur. di doomu xalifa bi. di doomu xalifa Sëriñ Abdoulahi Thiaw ñuy ñaan yàlla. ñuy ñaan yàlla. dolli guddal fanam. yal na yàlla dolli guddal fanam. dolli wéram. yal na yàlla dolli wéram. njiglaayu tariixa laayeen la de. njiglaayu tariixa laayeen la. waaye njiglaayu Dakar. waaye njiglaayu waa Dakar la. waaye njiglaayu réew mi Thiénaba wuutewu ko. Laaye bi Touba. Touba wuutewu ko Tiwaawoon. wuutewul Tiwaawoon Ñaseen. wuutewul Ñaseen Njaasaan ba këri këri diine yëpp jeex. kon lii sëñ Cheikh Gallo def. kon lii sëñ Cheikh def. wat ca watit rek. wat ca watit la. yow doxewoo say at. yow at de. dona bi ngay doxe dona bi ngay bi ku la ko jox. dona bi ku la ko jox. ci ñoo ko royee. te ñan nga ko royee. la jiitu ci ñoom ñi la jiitu ci moom. muy Serigne Mor muy Serigne Mor. ak Serigne Ndiine. ak Serigne mel ni ñoom. ak ñi mel bi sant na. Serigne bi sant na. gërëm na. gërëm na ñaan na. ñaan na bu sant mënoon a weesu. sant bu a weesu gërëm man koo weesu. gërëm man koo ñaan man ko weesu. ñaan man koo wallaahi Serigne bi weesu ko. wallaahi comme ko ñun. ndax lii nga def ndax ko jox koo ko jox. soriwu la daa fees dell. ci sa biir ci sa biir bii. fees dell fees dell. ci seen biir tariixa biir tariixa bii. fees dell fees waaye fees fii ci yëmbal nga teggi yooyu yëpp nga teggi yooyu yëpp kër yu bari bari kër nekk fi nekk fi nga ni sëriñ canaba nga ni sëriñ canaba loolu bu nu doyul teraanga loolu nag bu nu doyul teraanga doyu nu sag doyu nu sag doyu nu njukkal doyu nu njukkal doyu nu doyu ni wan ni def ngeen ni nu seen bopp def ngeen seen bopp mbokkoo ngeen mbokkoo ngeen kon du nu kon de nu doy kon ngeen yëg ni kon ngeen yëg ni mbir mii mbir nu tollul rek fu mu nu tollul ci ak kawe ak kawe ak mbégte ak mbégte ak kontaante ak kontaante wallaahi amut wallaahi amut aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëriñ moor ibnu seydina baay abdullahi ibnu seydina isaarul ila ibnu seydina imaamallaahi almahdiyul muntadar alayhima salaam mooy bëgg a jël kàddu ñun ñépp ñu taataan sanga bi ubbi ko ci kàddoom bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala sayyidina imaamil mahdiyil muntazar salawaatullahi wa salaamu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslim sang bi ne ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngay ñaan di sax di sant sunu mboroom sang bi ne ñu dox ak moom ba egsi ba fii lépp lu fi wàcc yàlla na ko yàlla def ngëneel amiin sotti ko ci imaam sunu way defaat ko leer sotti ko ci réew mi ak ci àdduna bi yëpp amin sang bi ne ñu ngi sant yàlla bu baax di nuyu kilifa yi nu fi fekk yépp ci turu xalifa bi ak njaboot yi yépp sang bi ne ñu ngi feddali rek limaam libaas bànjin général ubbee ay ndaw lañu sunu kilifa moo fi xëy ubbil nu yoon wi ñu teewal ko fi ci ngoon gi ñu jël teewaay boobu teg ko ci loxo maam libaas général mooy Seydina Isa taaw Baay Abdullahi bis bii kat bésam la dëkk bii di yëmbal dëkkam la njaboot gi fi nekk itam ak njabootam lañu yàlla dogal na xëy si ubbi bés bi ci lu ko ubbee ci alxuraan te ci foofu nag lañu war waxtaan ñu dellu ci ngoon gi maam libaas général ki tax nu daje fi wax nanu mooy kan te loolu kat mooy li waral bés bi jërëjëf maam libaas sëriñ Cheikh Gallo nu ngi lay sant bu baax fii ci yëmbal teewal fi diine nga teewal fi diine ji. teewal fi sa bopp. ndax diine ji. ki ko woote. daf ko woote. daf ko woote. woowu ko laayeen rek. woowu ko laayeen ajibu daa yàlla. ajibu ko moom. ñëpp ko lu baax. ku bëgg lu baax. ku ci yàlla. moom la Seydina Limaamu Laay woo. kon bés bi ngeen téye gan yu tedd yi gan yu tedd yi jóge fu sori kilifa yi nga xamante ni kilifa yi nga xamante ni si bii suñuy wayjur suñuy ak ñoom lañu woon benn lañu woon ngeen jëlaat bés bi tegaat ko ci seen loxo ñu wàcc fi ci tawxiidu laa ilaha illa allah ci capitaalub laa ilaha illa allah baat bi nga xamante ne si bii sunu boroom moo ko jox Seydina Limaamu sallallahu alayhi ci loolu rek la bu wér ajibu daayallah ni ajibu daayallah ñëw leen wuy si ndaw ñëw leen wuy si ndawal yàlla yàlla jox lu yàlla jox tawxidu wax lu tax mu wax ndax yonent ndax yonent maam libaas maam libaas amul benn yonent ci kaw suuf ci kaw suuf ni yàlla ma ni leen yàlla ma yónni lan lay yor lan lay yor de mission demal sóoratul araaf demal sóoratul araaf yaa xawmi abudullah lakum min ilaahin xayrahu amul beneen yonent amul bu mas a ñëw bu mas la te yoroo loolu Seydina la yor sooratul Araf lettre yonent bu ne sa mission la yàlla jox la yàlla jox Seydina Limaamu ci loolu la ñu woo ci loolu la ñuy dund ci la yàlla na nu ci yàlla rey te dekkal nu ci amin ko yàlla defee. ku ko yàlla defee. gan yu tedd yi. gan yu tedd yi. jóge ca way jur ya. jóge ca way ci yëmbal. ñëw bi yëmbal. ci bés bii ameel nañu leen ak cant. gu rëy sax. ndax li ngeen fi yëkkati. fekk ko fi. ñu ànd ak yéen. delluwaat ci sunu borom. loolu rek fi am. nu ngi leen di sant bu baax di bég lool ci seen dikk seen jotaay ak seen teraanga yal na leen yàlla fay amiin góor ga yal na ko yàlla yàggal may ko wér la yaakaar ca moom njaboot gi yaakaar ka ci moom na ko yàlla jox lu raw seen njortu amiin mu yàgg fi lool jariñ àdduna bi yëpp jërëjëf maam libaas jërëjëf maam libaas général ndax imaam saxiir ni nga nu ko tënkale ni ko tënkale ndax ndaw nga ñaari way jur yu ànd ngay doom na ci seen diggante loo ca wax lu am la bu kilifa bindee jox la nga dem ci kilifa jox ko mun la jàngal nga xam nga dellu mu tontu ñi la jàngal nga xam kon boo waxee li nga wax rek la ñuy gëm loolu la jërëjëf maam libaas général te loolu la histoire di doxe li nga wax ci imaam saxiir ci sama xam-xam bu gàtt ci ñetti taxawaay nga ko teg kilifa diine la ulama la rijaalun min rijaali ñetti taxawaay yi la imaam saxiir taxawee. kilifa la ci diine. kilifa ci diine. lay mel. kilifa ci diine naka lay mel. sa wayjur nekk ci diine. nekk ci diine. nekk ku mag. nekk ci ku mag. nekk la nga judd ci yaru ci namp ci namp ci. di ci dund. ku la gis kat xam ni yow mii kat kilifa diine nga. imaam saxiir muy benn sunu way jur boo ko nee xam ne ci ku mu jógee ci diine la ndàmp ci diine la naan ba fees del mu am boobu taxawaay ndax nit dina am ñetti taxawaay man nga ko am man nga ko bañ a am man nga yam rek man nga yam rek ci kilifa diine juddoo ci di dugg ci jàkka ji di julli di ñibbi sa man nga yam foofu wante nag daf ca teg li boroom xam-xam looloo tim li marta bu bu yaatu non lan koy mandargale bis bu taxee ci minbar bi la mu cay wax ci xam-xam kenn du ko dindi mu jóge fa toog ci digg ëttam ubbi téere yi daara dox loolu la dunde ci yëmbal wante nag rijaalun min rijaalil ilaahiyun est-ce que nit mën na am loolu yépp booboo tim mu làq ka booboo itam mu làq ka fan la jaar ci jaamu yàlla sunu borom dafa wax ni ci xadiisul xuds jaam bi nga xamante ni si bi day wéet ci naafila di naafila ba ma bëgg ko ba mu jegeñ ma lu mu xool lu lu mu gis loola lu mu wax ma fekk ka ca inna lillahi ibadan ida aradu aradallah imam Saxiir ci li nga nu jàngal tey ñetti martaba yooyu ca taxaw mu des beneen bi mu bokk bi mu bokk ak sunu wayjur lu tax ñu nuree la ko baay Abdullahi borom jamono dégg nga lim la wax ni ëttu diine bu ne bu fa demee am na photo yi bu mu fay toog dafa xëy am ko daf ko liggéey am ci relation la ko jaare sunu mag ji fi xëy ci suba di Seydina Laay. saxal alxuraan ji. saxal ñi. mag ñi. muy Baye Abdoulaye. muy imaam. muy imaam. Limaamu. ajibu daaya laay ajibu daaya alxuraan. andi alxuraan. ñoom dañoo dégg Baye Laay. yàlla dafa wax ni. يا أيها الناس إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم loolu la nu màng ñun danoo jeex ci diine xam li yàlla jublu ci diine ba mu bindee jaam bindu leen sànni leen dane jaxasoo leen xamante leen ci seen biir dimbalante leen bu ngeen paree nag ku jiitu ci yéen mooy ki ragal yàlla imaam saxiir ca loola la tegoon tànkam baay abdoulaye ni këru diine gu am naa fa seet bu may toog imaam gis ngeen ko digganteem ak tuuba digganteem ak ak tiwaawoon ñoo bokk lépp ba nu dégg aaye Seydina Limaam moo ko saxal kon sunu takkusaan ji sunu bokk yu baax yii saafonte ak ci tawxiidu laa ilaha illallah te ci la nuy naan ci la nu mandi dara daqul lii lii mooy lislaam lii mooy diine lii mooy lislaam bés ñàkk na léppam. lii lii la rawee ñëpp. kër diine yi kër diine yi réew mi ku mu neex ñoo yor réew mi ndax ñooy yàlla ñooy yonent ñooy yàlla te yàlla ak yonent bi ñoo yor àdduna kon réew mi ñu ne ñu ngay ñaan ni nga ko waxee léegi maam libaas général ak lu mën a xew na nit ñi delloo ci seen bopp xam ne li fi mag ñi liggéey diine la jaamu yàlla la am ci tedd nga ba wuy di seen boroom te yàquñu fi dara kon bu nu ko desee ak ku mu mën a doon ngalla waay bu nu fi yàq dara nit nit lu mu mënul am lu ci jaamu yàlla mënu ko am ko am. ci njub ci njub. ko am ci leneen am ci leneen allahu akbar. te nag. te dëgg la. féete dëgg la. waaye nag am na loo xamante ne. ku ko taal ci réew mi taal nga sa de. mag ñi duñu caaxaan mag ñi duñu caaxaan. kenn du yàq seen liggéey kenn du yàq seen liggéey. nguur kese. nguur kese. daw uti àdduna. daw uti àdduna. uti daraja uti kat kat uti compte bu fees. fàttali fi mag ñi indi woon fàttali fi mag ñi indi nga. ah nax nga sa bopp. day jeex day jeex. nanu góorgóorlu ci lu dul jeex. taar day jeex alal day jeex doole day jeex dëgg rekk moo dul jeex te mooy yàlla yàlla na ci yàlla saxal wasalaamu taala wa amin ya alamin amin ya alamin amin ya alamin